Euh, dalati leen ak jàmm mbokki internet yi di leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi moom mii di Dame Mbodji nag daal di nay euh, jot a dellu siwaat euh, ci kii di président de la république digganteem ak ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko gannaaw lankal ak bañal koo xam ne rek daal di nañ koy jot wane ci dossier bi nga xam ne moom mooy dossier bu président Ousmane Sonko rawatina nag fichier électoral yi nga xam ne rek jamono bii ñu toll nii mën nañ lu jig njaak moom moo di njaak Matar moom mii di Dame Mbodj mu ne nag euh, président ak gàngooram dañoo tàppe rek ne bu fekkente ne am nañu fit dañoo war a bàyyi nag euh, biir combat bi wala boo ko làmb ji ku bëgg sëgg bëree dal di dugg ci biir ngem bu fas yéene daal di bàkku euh, taloolee nag moom lañ daal di gàntalal xañ ko ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ba tax nag fiche de parrainage yi nga xam ne rek boobu ba tey ñu ngi koy jàpp jonge ba ayib dafee sax jot a def déclaration ni kii tey mën nañoo jàpp que loo xam ne rek lu yoon daal di nangu la nekkati jaay doole gu fees la ñu nemmiku boobu ba tey moom mii di Dame ci nekk candidat nag ci élection 2024 yi jote yëkkati kàddu yi ni mel nekkat dafa jaadu te tamit yell na mbir mi ni mel ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex lépp lu dellu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ñu yëkkati ci yey ci yàbbi si pour nag mbir mi daal di leer une bonne fois nekkat kii di Ousmane Sonko dañ ko war a daal di delloo lii di ay àq xam ne boobu ba tey ñi ngi ci kaso bi amul lenn loo xam ne rek lu yees ci ay ma ngay jàbbante réanimation wala boog léeg-léeg ñu ne grève ba daal di na koy yóbbu ba mu dem kawte te loolee nekkul loo xam ne nag luy jur jàmm la fii ci réew mii di Sénégal rawatina nag ci vingt 2024 yi nga xam ne moom la ñu daal di dégmal di leen di jaajëfal ci topp gi partout